mbokk yi ñu ngi leen di jaajëfal bu baax ñu ngi fii tey kër soq mi bëreeg démb franc franc am ci moom ndam lu rëy mbokk yi njëmb wax nañ leen ko gis nañ beneen xar kanam ci wàllu pikin jàppale bi ñuy jàppale soq ànd ak moom encadré ko gunge ko stade démb wax naa leen arène nationale bu mënoon wax démb day wax ndax la ñu fa gis ci mbooloo fay nañ mbër cent cinquante millions gisuñu ko ñuy fil ñuy encouragé waat bu baax soq di ko wax ne lépp lu mu waroon def ci bis bi def na ko waaye wolof daf ne ku dul may sa bopp loo am jëlal yàlla moo tuddoon ni soq ala kuli alin Franc day am ndam ci kawam mbokki kaay ñu xool ñi nga xamante ne démb fekk naa leen fii waaye kenn mënu leen a xàmmee ngir lan ànd ak soq yéene ko ndam jàppoon nañ ni bu ñu demee arène nationale dañuy am ndam waaye gis nga làmb noonu la demee Fall maa ngi lay nuyu baax di la siyaar waaye yaaram maa ngi lay siyaar ñu ngi sant bu wér Fall. man Isma laa tudd. Isma Isma Bambey quoi. Isma Bambey. waaw Bambey dëkk. Bambey nga jóge. Bambey laa la indi. ah mais kii man ak moom <laughs> mooy loolu. lan nga gis ci ba muy bëre nga jóge bambay ñëw fii di ko soutenir bëgg mu am ndam. c'est parce que Baye Fall la. Baye Fall kun koy dàkkantele c'est parce que sa xol yaatu na. Hmm. mën nga muñ lu bari. la preuve. mbër daana am defet xëy bañ a añ bañ a reer a ndékki hmm. mais loolu lépp yàlla suturaal nañu ba defu ko danoo jógoon di wuti ngir sama borom yàlla may nu yàlla xañ nu jox Franc dañuy ñaanal Franc ndam li jikko ñu nit jël bi amaana du nekk dernier jël mais mu doon jël boo xamee di leen ko gëj a gis quoi. Hmm. si. démb ci ban moment ngeen jàpp ne yà ñàkk ngeen seen làmb. non moo xam nga tey dafa am loo xam ne nii mënuñu ko jàllale fii quoi. Hmm. si. mais non c'est parce que xam nga rek maanaam làmb am na foo xam ne ba biir néeg la léegi nekkatul mbedd mi. noonu la demee waaw. ci biir néeg bi lan ngeen war a waxtaanee ci biir néeg. noo jàmm ak salaam rek jàmm ak salaam rek xoolaat sunu toogaay waxaat ndax it comme ñun mbëru ñëpp lañ yor. maanaam mbër moo xam ne nii amul gox boo xamante ni mën nga faa dugg tey ci Sénégal bi fii te doo fa dégg ku ne la soq man damaa neex te lim lay dàkkantale damaa neex gi mooy fi mu teg yaayam ak fi mu bëgg a yóbbu yaayam. Hmm. loolu rek la. ndeysaan ça va yaa ngi ci café gi de. waaw gis ne ñun ay Baye lañ moo tax mooy loolu. noo tudd. man Demba laa tudd Demba. Demba waaw. ci <laughs> ku baax ñu ngi siyaar. Demba Demba foo nekkoon ci xol sama caméraman bi di laaj café di naan. Demba maa ci hmm? ci mugaay bi ci nga jàpp ni soq mi tey nekkul ci làmb ji wala jekku nañu ko wala soq daal gëw dina am ndam. moom yàlla moo ñëw rek mais soq mi doon gis ci combat yi bu ko raw lañ gis démb. Hmm. waaw dem moom ñun sax moo ñu doon soulager xam nga gëmoon nañ ne démb ku ñu waxoon dañuy daan duñ ko gëm si àdduna. Hmm. parce que làmb ji lépp lu làmb doon di di di doxoo wala lépp lu làmb di waaw loolu lépp lu ñuy def si làmb démb def nañ ko. Hmm. entraîné na indi na doole xam nga respecté na combat bi combat bi jaraloon na ko trop mais nag sunu borom moom kenn xamul ay mbiram. waaw jàmm bi sabul rek la am lu si des mooy mottali waaw te démb Franc la jox ndam li ñu ngi koy ñaanal yàlla ndam li jikko ñun bu ñu amee beneen combat yàlla may ñu ndam mais démb daal defet bi bett na ñëpp. bett nañu man moom ma ko gëm. waaw parce que parce que xamoon naa ne soo ko démb waaw teewoon na làmb ji daal te gëmoon na ne daan Franc. ak bi soq bëree ni mu bëree ci sa xalaatu bopp yow nan ban erreur la soq def. ba Franc daan ko parce que mbër bu juumul la jëlu du am. waaw yaa ko wax mbër bu juumul jëlu du am kon tey démb daa nekkuloon bisam rek te boo waree daanu moom cuune ngay ne loo def daanu démb noonu la demee mais ku nekk xam ne ne Sokh jàmbaar la champion la ndaanaan la. adversaire prochain adversaire Sokh ñan lañ ko war a mën a jox ñan la war mën a laale parce que buntu làmbam malgré am na defet mais démb ni mu duyee stade bi mbooloo mi ko topp daa mel ni buntu làmbam gën naa ubbeeku. ba tey si suba moo si mujj léegi léegi léegi lu amul seen baaxul léegi ay promoteur ñoo ngi koy woo promoteurs yi mag ñoo ngi koy woo bëgg a dox ay combat parce que démb ku nekk gis na Sokh lu mu def arène nationale te jafe na ci ay moroom ay moroomam ñu def li mu def démb arène nationale démb arène nationale daa muslu Sokh da koo muslu dem li ne ci biti moo ëpp fuuf lu ne ci biir soo ko dem avant ba muy quitté fii di dem di dem stade rek lu mu dee def nañ fi une heure temps pour ñu génn fii rek problème la te loolu du jàmbaaram mbir suñu boroom la ak Baye Fall ma bi mu doon wàccee boppam moo ko may loolu ñun ñi ànd ak moom suñu xol seet na si moom waaw. grand noo def macha allah am na solo noo def. Baye Fall si ana la. noo tudd. wala Zal. Zal waaw. Zal lan nga ci soq yow. soq sama sama frère la. ñoo bokk ndey ak baay. Hmm. boo gisee boo déggee ñoo bokk ndey ak baay gëj ñoo bokk sa aram ak awa. mais cër bi ma jox. Hmm. koo bokkul ndey ak baay waroo ko jox cër boobu mm-hmm. ndax jamono fi mu toll moo tax. Mm-hmm. du question dañuy warewu wala dañoo bëgg a wax di wax wala safa wax di wax chaque jour ñu gis ñu mën a wax te duñ ci wax mais làmb ku koy def ku ne xam làmb ak yàlla ça koy def te amoo gétt ay mbokk bisu làmb di dinañ xeexee ñu tàgg la laxas ay perkaar yóbbu la mm-hmm. am mi ngi am dama jox yaa ngi dégg. saay man maa toog si jumtukaayu soox. yow mi barke Seydina Muhammad mm. maa mujje ñëw ci moom man la ko dénk. fan yi laa ñëw ci moom mun naa la pour nga pour ma wala ni yàggu ak moom noonu bu tax ñuy wax. mais daam am lu ma doyloo. sox bu ma dénk xaalis du ko compter. bu ma koy delloo du ko compter. pour man yàlla rek moo mel noonu. Mm. mais moom daf maa jaaxal. mais la waa làmb ji souvent dañuy def communication naan faruma fii faruma ak kenn. bu ñu waxee ba pare nga ni ñii ñoo gën a jege yàlla. mais bu ñu jëfee rek nga xeeb leen. dem lu salte la ñu def ci buntu làmb ci mais loolu taxul soq daanoo. te taxul soq daanoo de ñoom dañoo fay def moo tax soq daanu. dem soq daaw yàlla rek moo àndul ak moom mais képp ku boppam féete ko ñaari tànkam féete suuf ànd na ak soq. France soq la faraloon. mais lan lañ leen def ci ci ci buntu làmb bi avant ngeen di dugg ci biir stade bi la wala porte bi mbër mi di duggee wala lan. laaj nga ma laaj nga ma ma neex loo xam te ne yàlla laa koy seedalee. moom muy lan. làmb dafa am ay tegtal am ay jaar-jaar am noo xam ne foofu nga war a jaaree pour am foo xam ne foofu nga war a jaare pour génn. CNG règlement bi bari na trop dëgg la dañ leen koy nangul. mais soo ko mënul ñëw ànd ki war a toog si cumukaayam ñu boot ko pour mu dugg ci biir mun a gars yi ci taxawal waa CNG na zemi kii moom mooy toog si sama cumikaay bàyyi leen ko mu dugg ñu ne ko waaw ñu bàyyi ba soq dugg ñu boole kama est-ce bi ñu ko mayoon dafa ëpp. mais même bu ñu même bu ëppee nañ ñu ko nombre bi ñu may dafa ëpp ñu ñu mu teel xam avant muy dugg muy wàññi muy soog mu wàññi ba pare soog a dugg mais dañ ñu ko waaw jox ko waaw kàddu waaw ba mu xam ni nee nañ ko waaw ñu boot ko mu dugg ñu dugg rek ñu avant avancé rek ñu boole kama du ma fa xeex kenn du ma fa xool kenn parce que bis boobu li fa a xeex ak dóorante soq moo koy defal boppam man indi ñëw ma fa ma dóorante. noo def yow. merci benn kilifa gendarme boo xam ne fii la dëkk ginnaaw raay. Mm. du ma mën a tudd si turam ndax xaw mm. yoon may na ma ko. Mm. moom laa mujjee woo expliqué ko. ne ko diw mu naaw man ko man maay toogal soq ci mi kaay. soq dafa war a dugg. ànd ak man te dañ kaa boot bi muy dugg te diis na diis goo xamante ni ki ko boot attan na ko attan boo xam war na mën a taxaw di expliquer mun a gars yi ki taxawal waa CNG ne zemi yi kii moo ma toog sama jëmukaay bàyyi leen ko mu dugg ba ñooñ na ko wax ñu boole ko ma mun a ma kaay ne waa CNG kii mooy toogal soq jëmukaay te ñoom ñoo ko jox feebar na ko kii dina dugg bàyyi leen ko mu dugg mais téye nañ ma fi téye boo xamante ni yàgg na def naa fa ay une heure de temps xanaa presque soog a dugg mais bu ma xamuloon ko kañ laay dugg. ak soq kañ lay sentir ni man dugguma ak tàngaay lamb ak engumaawu làmb fi toll. boobu yëpp li nga nekk ci biir soq yëgul ni sax duggoo ci biir instant. mënu ko yëg parce que mi ngi ci ay tegtalam moom day jàpp ne man tamit samay tegtal maa ngi te bu fi muy jaar ak fi may jaar ak bu li may def ak li muy def nekkul benn. kon du jàpp ni man maa ngi ci wetam. day jàpp ni Zal mi ngi si ay tegtalam te dugg na te kenn defu ko ku dul ñi nga xam ne ñoo tëgg làmb ji. ba pare bu ñu taxee na farlu ma ak franc damay teg sama mbir ci yoon ñoom ñoo ma boleke yaa ngi wax léegi CNG mais yaa ngi attaqué waat ñu tëgg lamb. waaw ah non si tax waa CNG ñoom mënu ma leen tudd à cent pour cent seen i règlement lañ teg laa la wax. mais li tax ñu taxawloo ma ñoom ñu tëgg lamb ji waaye ci boppam bu ñu taxawoon léegi man la kii la te xam naa ñu tëgg lamb ji la bokk xaw ma seen tur mais xam naa ne kii si la bokk parce que man science du soq demoon naa DSS gis naa leen fa. biñ nekkoon ni kii moo toogal soq ci mikaay dafa mel kuñ kuñ may ay millions dafa xolam dafa sedd mun leen bu mu dugg lan moo tax mu ne ko bu mu dugg parce que ça veut dire que xam na ne liñ liñ bëgg ñoom ci seen ci kiñ faral mun nañ ko jaaree si kii ba am ko moo tax ñu boole ko ma mais comme boole ko boobu noonu suñu borom moo ko bëggoon rek. yàlla noppi na démb. diw ay yëreem daa weex taxul yëre kenn ñuul fi yàllaa fi ne. liñ def noonu bu ñu yaakaaree ni si la mu faraa nekk. ñoom lay yàqal ñoom ñoom waa jàmbaar lay yàqal parce que dinañ bëgg tëgg keneen koo xamante ni biir parcelle la ne kooku dëkk feneen. ñu bu ko dégg ñu ko tëgg kooku di du leen wóolu. mais nañ rafetal lu waroon a am démb suñu borom la neex ñoom duñ ci dara nem Baye Fall bi ñu moom sox la defet bi méttiwul yaa ngi ko fekk léegi muy añ te ndékki na ba pare. parce que xamul tax ni mu war a def la ko def bàyyi li des ak yàlla parce que ci biir communication bi yaa ngi ko dégg mu naan dégguma dégguma kenn victoire far force. wax na ko. waxuma kenn damay daan ko franc far fas te bugguma kenn génn saaga franc wala mu wax lu mu ko warul wax. li ñu war a jëflante ak franc ñu ngi koy jëflante kon affaire yi kon moom teg na ko si loxo yàlla bu bu yàgg mais yàlla bu jëfee jëfam même bu dee dafa ñaaw bu si benn doomu aadama war a cee ñaaw. dëgg la am na solo ma koy jaajëfal bu baax ci leeral yu am solo yooyu euh, grand bi moom yaakaar naa yéen ñu ci bari xàmmee ngeen ko grand maa ngi lay maa lay ziar Moussa Ndiaye. Moussa Ndiaye lanu soq. Euh, soq man grand frère am laa man maa ko yar. waaw démb bi ngay dem ci làmb ja ku leen waxoon làmb ji fii lay mujjee di ngeen ko gëm. non no non non non non tax. non non danoo xam suñu mbër lu mu pare quoi. làmb ji dañ ko pare lépp physiquement mystiquement lépp mais yàlla mu moom ndam moo xool lu ko mu def ko rek. jox ko Fra waaw. yow foo nekkoon démb ci stade bi. man maa ngi woon fépp. maa ngi woon la benn yoon ci tribune bi ci cimekaay bi. ci bi. Hmm. waaw maa ngi suuf. ban moment nga jàpp ni soq mi daal gisuma soq mi ma doon gis wala jàpp nga ni non soq mi daal mun na ñàkk kombaam ci ban moment la. non xam nga làmb boo waxee da ngay mel luy salté victoire quoi mais làmb yi ñun bi ñuy dem stade suñu victoire la ñu yóbbaale. mais lépp mi ngi commencé si bunt bi lépp mi ngi bi ñu ñëw di dugg. xam nga policiers yi xam nga kuyaas yi ñu sonal waa seen waa kii tamit xam nga ñu tëgg làmb ji xam nga di def ay yoo xam ne doo comprendre quoi. ñu sax ñoom ñoo def nañ dara mais maanaam dafa am yoo xam ne jëru ko si làmb maanaam suñ ñëwee ñoom ñun ñoo pare suñu combat indi nañ suñu mbër nañu bàyyi ñu dugg mais jimi jimi timit xam nga defuñu dara suñu cumbikaay mais ñoom ñoo indi chaque jour am si làmb chaque jour jimi yoo indi mais ñëw nañ suñu cumbikaay defuñu fa dara ñun xeexuñu xulowuñu xam nga la ñoom daal xam nga ñun daal suñu làmb daal xam nga mën naa biir stade la commencé indi ay affaire quoi di def ay affaire oui. te coow bi arrangé wu la. parce que bi ñuy départ fii la ma woo ma ma ñëw ne ma Moussa ma ne mu ne ma làmb ji laajul coow laajul dara avant boobu sax ñun xam nga wax nañ ñu ko laajul coow laajul dara xam nga man woo gars yi waxtaan ne làmb ji nañ dal mais bi ñu demee daal ba dugg biir stade la affaire yi commencé xam nga xam nga nag nu mu demee noonu affaire daal noonu la commencé xam ba si biir stade ba ba nii bëree gis nga mooy loolu boo boo seetloo sax ñun côté bu nekkee woon sax mu ëpp coow ci la booy doon sànni ay chaise ci la ñu doon sànni ay affaire mbër mbër bi sax dafa mujjee déplacé wu ñu jëlee ko ci gaay bi yóbbu ko ne balaa ñu koy xaañ xam nga dimi doo pare sa combat mm. di taxaw foofu ñu ngi koy sànni ay chaise ak ay weñ ak yooyu noonu bu la dalee da ñoom ñoo ko tey fekk tey ñu te instant boobu ñun xam nañu mbër bi instant yi tey jii tey la bëri la bëgg waaw ci ban moment bi soq bëree nag daanu mu leer na soq da doon wuti mais ñàkk na moment boobu loo def ak man moment boobu gisatuma la benn yoon ci stade non boobu sax xam nga mbër bu daanee day day bu daanoo day wér si géew bi daw naa dem di ko jëli ji sax mais a euh, jëmi ñoo ma téye quoi moo tax après bi mu génnee noonu xam nga mu commencé xam nga xam nga rek moom jàmbaar la di jooy affaire man wax noo jëru jooy te noonu dem xare ji xam nga yàlla xañ nañu may na franc na ñim ñibbi jëru ko muy xam nga ñu def la tout ba indi ko fii xam nga fii tamit xam nga gars yi ñëw ku nekk di wax ma jël ko tamit yóbbu ko appartement mbaaw xam nga la. après mën na ko tëddal tëdd changement mooy loolu ba nii suba nii ñu yew ñëw fii nii. mais bi mu guddi gi nelaw na. wala yow non nelawul nelawul day tëdd sax benn xam nga. xam nga di jooy mën na jàmbaar la mu ne Moussa bis bii waru ma ko man mën na ko bis bii waroo ko ñàkk parce que bis bii moom la Ama Baldé doon bëreeg Malick ñaa te daa indi ndam. Boy moom loolu doon bëreeg Sa Thiès te Eumeu Sène moom la doon bëreeg Gris Bordeaux moom la doon bëreeg Balla Gaye 2 te ndam yow moom nga doon bëreeg Franc yàlla xañ la ko léegi lan nga bëgg ma ne ko mais yow Ama bala yéen doon fanaan boo ñaa waxi noppi Eumeu seen sa grand frère xam nga jàppale la yëkkati xaalisam may la xam nga ñëw sa ñëw sa ñëw di ñëw géej ànd ak di entraînement Ama Baldé waxi noppi xam nga lu wax ñeneen ñi boo ñaaw waxi noppi ngeen booloo nekk benn loo xam ne gëj na Pikine yow yaa ko indiwaat yow yow yow xam nga laa lay wax gàcce ngalaama xam nga man Ama Baldé moo ma yee fajar. billaay wallaay moo ma woo téléphone fajar di wax non non non tey jii. tey jii moo ma yee. lu la wax yan kàddu ngeen dénkante yéen ñaar. li ma wax mooy. ana mbër bi fekk mbër sa waay daa fay téléphone mu ne ma ana mbër bi ma ne ko ma ne ko échantillon mbër bi day day nelaw. mu ne Moussa Gueye lamb ji nu mu demee nii ma ne ko non waaw ah, yow mbër am nga rek yow yaa ma gën a xam ma ne ko yow leer na bii dem stade victoire lañ yóbboo Ama Baldé lu leer nañ la teg si table bi. wóor na alxuraanu karim billaahi wa muy muy moom di booy di Eumeu lu leer naññ naññ naññ lañ yóbbaale stade mais làmb ji suñu si ñun waaw. ñun ñun ñun ah. ñu wër soq ñun. estaf ah. soq. Hmm. ñun ñoo yàq suñu làmb. ñu ngeen ko yàqee. non bari na xam nga nekk na loo xamante nii euh, doo ko expliquer si ay médias nii mais après ñun dinañ toog suñu biir. Hmm. xam nga am lu ñu seggaat am lu ñu waxaat am lu ñu defaraat. waaw sànq rek bi ñu jógee mbaaw maanaam mbër loolu la doon waxtaan waaw mais nekkul loo xam ne da nga koy wax média wala affaire yooyu noonu. waxtaanu biir néeg la. Ah, waaw waxtaanu biir néeg la. waxtaanu waxtaanu biir néeg la. waaw. Ah. maa ngi lay siyaar. waaw ñu ngi lay delloo siyaar. waaw ñu ngi sant sëriñ. tur bi naan la. man maay Thiat. Thiat. waaw doomu nday Sokh. waaw. dundee làmb. waaw comme ni nga ko daan dundee rek. waaw sunu borom mooy maye mooy xañe moo ñu xañ démb noonu rek la di ñaanal Franc yàlla ko ndam li jik soo ko aussi tamit il hmm. commencé gul ci làmb ndax làmb da koo soxla xale la. Hmm. démb li def arène bi yombul pour mbër def ko fi. mais mbër war naa mën def noonu arène nationale ba arène nationale démb bu munoon musloo day muslu ci soq ba pare nga ñàkk ko bi. waaw mais yàlla moo ñëw soq ñun ñi bëgg nañ ndam li trop mu ñu gën a soxla. ndax moom sook lu mu am soo ba ngoon jot bégal ay àndandoom ak ay am di jàmm moo ko gënal. ci lay dox looloo waral mu dem jëli franc mu jaw ko mu bàyyi jabaram bàyyi ay doomam bàyyi papaam bàyyi yaayam bàyyi ñëpp tukki te bi mu ñëwee démb ñëpp xam nañ Sokh mi pare na yàlla moo yor ndam di ko maye démb moom moo ne sook du am franc mooy am. mais Sokh démb nan la waroon mën a bëree parce que ñu bari nee soq dafa bàyyi yoon bi mu waroon bëre jël beneen yoon ba ñàkk yow lan ngay wax ci loolu. waaw xam nga problème Sénégal lan la. Hmm. bu bu bu football amee. ñëpp ay coach la ñuy doon. su làmb amee tamit. Hmm. ñëpp tamit ay entraîneur la doon. démb li mu def. bu si amoon ndam. Hmm. ñu ne sook day ñeengo. yaa ngi dégg. daanu na si faaw ñu blâmer ko. te blâmer yooyu ñu koy blâmer rek mooy motivation bi. mooy tax ñu gën a toog sunu biir waxtaan xool erreur yi ak faay yi ñu rectifier ko. xeex ñu bari nee nañu xeex bi mu commencé ca xeex ba la waroon jeexee waru woon jàppante yow lan ci loolu. mais làmb la rek làmb la rek làmb la quoi dañuy nangu ni lii làmb la xeex la commencé xeex la waroon jeexee bëre la commencé bëre la waroon jeexee yooyu yëpp qu'importe lii am am na ba pare li ñu war mooy. dem waajaat xaaraat beneen bis bu mag encore ñëw defar résultat. suq ñan ñooy ay adversaire am actuellement ci làmb ñan ngeen jàpp ni war ngeen a mën a boore bëreeg ñoom ginnaaw defet bi ngeen am démb. no sook day mbër boo xam ne kenn du ko tànnal adversaire moom làmb koy jox adversaire ndax làmb ko soxla sook day dundal làmb làmb dafa soxla sook man boog man caat du fi nekk di may benn mbër buzz ndax sook mbër ëpp ko buzz doo fi toog naan jox leen ma diw jox leen ma diw déedéet soo ko dafa bokk si làmb kooku génne ci làmb làmb fay. jërëjëf Thiam. noonu la demee. maa lay jaajëfal. loo wax hmm. ay promoteurs yu mag. Hmm. ñoo ñu téléphone. yu mag. ay promoteurs yu mag. Ah. ñooñu woo téléphone. xanaa promoteur bu mag adversaire bu mag la lay moom laa lay wax ñooñu woo nañu. Hmm. Sokh bu bëggee mu ñëw jël si avance. wax nañu mbër. mbër mu mag non xam nga nañ ci def code. mbër mi fan la parcelle. géejawaay Pikine. wala fan non xam nga mënul nekk Pikine. mais nañu def code li ma la wax nii. ay fon yu néew li ngeen li ngeen si dégg wala boo fi ñëwaatee ngeen war a interview wala ngeen war a interview. mbër rek adversaire boobu. non non non parce que ku mu bëreel pare ñu soxlawuñ ko. adversaire boobu mos naa dugg Pikine. nobbi nobbi nobbi kii laay waxal moxol moxol moxol waaw waaw ñaata <laughs> yoon la dugg Pikine adversaire non non def si got dina la diggante parcelle ak ak ak ak Pikine wala nekk cadre derby sax ay fan yu néew ah. parce que xam nga dafa am ay promoteur yoo xam ne ah. ay joli cœur lañ ah. xam nañu démb soq li mu indi esat du esat ba mu fees ñëpp ñëw Pikine kenn desul ñëpp yéen ko jàmm. mais jàmbaar bëgg joxaat avant. waaw non bu ñu jox avance ñu jël parce que ñun garaawul defuñuy dara lamb la rek dañoo waroon daanu ñu daanu. mais daal naa xam ne promoteurs yi yee nañu téléphone jox nañ ko mbër bi encouragé nañ ko ne ko xamal ko ne ko jàmbaar na demal nga liggéey ku hmm. la neexee ñu jox la diw. mais soq lan moo tax ay adversaire u làmbam ñii dañuy dem États-Unis ñii dem France ñii dem Italie ñii dem Espagne soq tànn tànn Maroc. non du cadre moom moo tànn sax Maroc bi nii moom moo ne parce que dafa am suñu benn grand bu nekk euh, Maroc foofu. gérer foofu salle bu mag salle bu gën a mag Maroc moom moo ko gérer moo ko daggal bee aller mu dem foofu si moom. mu fayal ko deux ans. instant yi même mën naa delluwaat. waaw léegi. ñi ngi sant waa Pikine mhm. leen gërëm mhm. di leen wax gis nañ seen taxawaay ñun ñëpp gis nañ ko mhm. dañoo yéene woon soxu ndam yàlla nag moo ko xañ euh, ñu ngi gërëm Eumeu Sène gis nañ ko taxawaayam ci rakkam ñu gërëm Ama bale di gërëm Boy ñaa di gërëm waa xam sa cosaan yëpp mbër yi fa nekk yëpp yéene woon lu ñu soxu ndam yàlla nag mooy xool lu ko neex mu def mais incha allahu rabbi di leen pare beneen komba suñ ñëwee di ngeen gis yeneen facette. jërëjëf. wasalaam. mbokk yi noonu lañ leen di leen jaajëfal bu baax dégg ngeen leeral bu am solo boobu nga xamante ni waa soq wax nañu ko di leen jaajëfal mbokk yi ba ci kanam incha allah.